ma ma ñëw léegi bàyyi ko sax dimbali. amul problème allo. Diop si. honorable député. Ah. maa ngi lay def Abdou Aziz na nga def. maa ngi fi. bo bo ba tey ñu lay ñu ngi lay ëkku rek ñu ngi lay doog a gis. waaw <laughs> dama doon xaar rek. waaw ba ngeen ba ngeen jël ma waaw. maa maa ngi rafetlu jotaay bi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne la nag suñu participation yi may def bi jëkkee damay wax ni dama àndoon ak xale yi ñu créé mouvement boo xamee ni mooy liggéeyal maam Maodo. Mhm. ñu ñëw joxe cent quinze millions. seen cent quinze millions teg naa ci deux cent cinquante millions. ci liggéeyal maam Maodo. teg ci ñaata. deux cent waaw. deux cent cinquante. ma ne teg naa ci liggéeyal millions. cent cinquante millions. allah kubar. ci liggéeyal maam Maodo. Ah. groupement liggéeyal liggéeyal yaa ngi dégg li ma wax. waaw maa ngi dégg. dellu tegaat deux cent cinquante millions pour man ak sama njaboot. deux cent cinquante millions ci liggéeyal Mame Maodo. deux cent cinquante millions. waaw ci moom ak njabootam déglu leen déglu leen. waaw man ak sama njaboot. des na de. entreprise yi ma yore. waaw. dinañ joxe mille tonnes sima kon deux cent cinquante millions ci liggéeyal Mame Maodo deux cent cinquante millions moom ak njabootam muy cinq cent millions. mu teg ci ñaata ciment. mille tonnes mille ton mille tonnes. mille tonnes mille tonnes ciment. allah kubar ak deux mille. ak. déglu ma ba pare wu de. waaw tegaat deux mille tonnes béton. mille basalte. déglu mille tonnes béton. béton béton la ci teg. basalte waaw. waaw waaw. teg ci trois mille mètres cube sable. nee na teg na ci trois mille mètres cubes suuf. jox leen ñaari camion. teg ci. teg ñaari camion yu may bàyyi ci jàkk yu may bàyyi ci jàkk ji. yu may bàyyi ci benn benn ak benn place. dégg na ñaari camion yoo xam da koy bàyyi ci jàkk ji ñu ci di ci liggéey. waaw muy benn ak plateau. loolu mooy sama première participation. nee na loolu mooy première participation. ah ba ah, ñu résumé benn xarit. ñu ñu résumé. am ñu résumé déglu leen. waaw. ñu résumé. ala Diop ma delluwaat na la dama ne. waaw naa joxe deux cent cinquante ci liggéeyal maam Maodo. deux cent cinquante millions waaw. ci liggéeyal maam Maodo. waaw. ndax maa ngi maa ngi ñoom ñoo sos ko. waaw. ma waxoon ci kanamu sëriñ bi bu nu ñëwee cent millions yi ñu am dinaa ci tegaat deux cent cinquante millions muy trois cent cinquante millions. waaw d'accord waaw ak trois non pétrole ba différence. trois mille mètres cube sable. mu ni ñaata sable. trois mille mètres sable. trois mille trois mille mètres cube. waaw. ak deux camions. ak deux camions yi may mettre à disposition bàyyi ko foofu benn plateau ak benn benn. waaw. Ibu yaa nga wax sëriñ. jërëjëf kon ma récapitule li di Diop kon ma récapitule li Diop si wax. nee na dafa àndoon ak waa liggéey maam Maodo ànd ak ñoom dugal ca loxoom bi ñu indee cent quinze millions yi moom teg na ci deux cent cinquante millions nee na moom ak njabootam joxe nañ deux cent cinquante millions nee na teg na ci mille tonnes ciment teg na ci deux mille tonnes béton trois mille mètres cubes suuf ak ñaari kamion yoo xam ne daf koy bàyyi ci jumaa ja ñuy liggéey benn plateau ak benn benn lii mooy dugal loolu dugalagul loxoom te nee na pareegul moom Diop Sy mooy première participation kon Diop si yàlla na la yàlla fay dëgëral la sàmm la yokk sa wërsëg li nga def ci jumaa ji yàlla na ko yàlla ful Diop si kon ñu bàyyi la nga tàggoo dem na soxna sa alxaaji Mamour Thiaw El Hadj Mamour